sénégalais yaa soo dee fal da fal sénégalais Ousmane Sonko moo ñëw soutenir xale yee leen ubbi seen bopp li ñu nekk campagne kenn fayutuñu ñun ñooy jël suñu décision bopp di campagnal suñu bopp yaa ngi kenn fayu ma barke alxuraanu kari man benn tali laa dëkk dootuñu politique laa ci kaso bi nekkoon ah, man li ma jàppoon le premier août le premier août lañ ma jàppoon 2023. premier août 2023. waaw ah, ah, ñu ñu sonal ñu nag coono bu mitee mitee mitee. fu la jàppee fu la jàppee. ma jàppee Ouest waaw jour bi ñu mandat dépôt Ousmane Sonko ma jàpp. Mhm. mais nag noonu la ko yàlla euh, bëgg ñaata weer sa euh, presque def naa fa 7 mois. 7 waaw euh, kii août ba févrie févrie laa génn. nga génn waaw. Ah, te ji yaa ngi ci caravane bi ba léegi yaa ngi ànd ak Sonko di ànd ak Diomaye yéen a ngi dugg Pikine. amul bàyyi. billaahi su laajoon su laajoon nii ba Ségol Sor sax dañ koy dox ànd ak ñoom Sénégal jaral nañu ko. Ousmane Sonko jaral nañu ko. dama ne réew jeunesse kese ko mën a defar jeunesse kese ke mën a defar te yàlla dañuy may chance boobu mais ay njiit yu yoo xam ne ni gëmuñu seen bopp lañu yàlla yàlla doon jagleel mais ginnaaw ba ñu gisee Ousmane Sonko moom lañ dégg suñu yaakaar yëpp te gëm naa ne ni yaakaar bi du tas billaahi wallaahi taalaahi Ousmane Sonko góor la Ousmane Sonko dafa fekkoon jeunesse di nelaw mu ñëw yee leen ne eh, seen réew te boo leen du baax mais Sénégal Sénégal suñu ressources yi nekk yëpp mais Sénégal heure boo xëyee dund bi di gën a cher location du gën a cher ñàkk bañ a di gën a métti loolu ba kañ dañu mën a dégg quoi Sénégal dëkk bu ndaw la Sénégal heure bi war na bii mu nekk nii mais ay njiit yoo xam ne gëmuñu seen bopp te loolu yàlla doon jagleel mais Ousmane Sonko am na ci moom yaakaar te ñu ngi ñaan nag yaakaar boobu. yàlla bu mu tas yàlla bu mu tas. waaw billaahi wallaahi taala Sénégal nee naa defar moom su ma ko jox te ma defar ko. Sénégal may occasion waaye wax ne maanaam. Euh, may occasion di wax ne maanaam affaire daal nit ñi nan focus ci lii ñun xoolal wallaahi maanaam man dañ ma dañ ma na wul campagne ku la ayé han ku la ayé non soxna sa xam nga dafa ma bëgg quoi madam mu ne bul dem campagne waaw madam tako moy génné kass xam naa daa ragal daa ragal jàppaan waaw waaw tako guma ko nag biñ ma jàppee dajee jët lu dajee daj lu nekk sonn ci torop comprendre nga moom moom nga ayé mais nag ma dam maa ngi koy tuumal di ko jégul te xam ni maanaam lii daal lu mu roon a ñàkk la waaw yàlla baax na day tax commerçant fi ci Pàkk Lambaay sun suñ xol dafa sedd guy amuñu benn leader bu dul Ousmane Sonko man man ibrahim Faye personnellement maay ki nga xamante ni man maa maa représenté Bawol man maa ko tudde doom bi jour bi mu demee jam ñaajo kontaan lool ci moom nag di leen ñaan ca kaw ca kanam di courage ca xam ne nun lii lan soxla soppi ko lan soxla parce que dañoo war a jóge dem ci jóge ci plan A bi dem ci B bi

Donc la caravane est arrivée au niveau euh, buntu Pikine ñu ngi fii buntu Pikine donc ñu fas yéene biir Pikine fas yéene biir fële ko taaf tali bu